mënti nekk si biir Sénégal ñëpp ñoo leen di teewlu mbokk yi mooy assurer seen visibilité Tawfekh production ah, ma jug ngir teeru bis bi ma saf bis ba yayoo way ba mooy màggalu go Tuuba bismillahi ma saf bis ba yeyoo ba géex mooy màggalu go Tuuba bismil ilaahi na ngeen jugu teeru bis di leen ziar di leen dalal bu baax ci Xelcom boutique Xelcom butik nag suñ ko déggee xam ni bërëb la boo xamante ni day yëngu ci wàllu laxasaay jaay ay yére murit rawatina kon xam naa ni dañ leen di dalal bu baax rek yéen waa Tawfekh. lu jiitu bis na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu ko Tuuba ki tax nga tax soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalu ko Tuuba 18 ci weeru safar mooy bis ba Ahmaduna génnoon dajeek noon ya daa bañ ñi xam Tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rek moo taxoon mu la fas dadi njaboot geeg ña daa jaayante fii Tuuba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gën ful na toom ya ngir bañ mu dellu seen ndam ci biir Tuuba moom rek a dem dellu si maslaawul tasaalitu ni tey way di wax lam daa wax bam jugul Tuuba مثال توبوا له واتركوا تسليس sëñ Cheikh ñu ngi ziar bu baax a baax. Euh, euh, fekk ci leen tey fii si Xelcom boutique ñu ngi jëm xew-xew yu mag yu nekk suñu kanam client yi bu ñu bëggee laxasaay lan ngi leen di proposé. waaw Xelcom moom daa mel ni comme ni ñu koy gisee rek di ëpp ci réseau yi suñu yëngatu day jëm ci yooyu ci yére yi nga xamante ni day day day jëm ci murid yi dañuy def ay baylaat dañuy def bay soin bu dañuy def ay turki njaareem rawatina ndax ñu ci bëri daanaka dañuy taamu xelkom ci lu dul màggal sax rawatina nag màggal nga xamante ni murit dañuy bëgg yees bëgg tamit ku ci nekk rek bëgg li nga li nga li nga xamante ne nii moom la ñuy xàmmee ak murit ku la xool xam ne kii kat ab murit la te yooyu ku fi ñëw mën nga cee am ci choix boo bëgg. soit boo bëgg ànd ak qualité bi nga xam ne moom la ñu soxla ndax bëri na bu xew-xew euh, yegg see ñu bëri di ñaw waaye nag day mel ni qualité bi la kii nag di jooy lan ngay joxe garantie ci qualité bi. waaw qualité bi moom daa mel ni nit ñi ku ci ku ci nekk da ngay xool rek soo xoolee di nga gis ndax ñun moom li ñuy dañoo taamu fexe ba client bi am satisfaction ci li ñuy liggéey loolu loolu lañ jiital ci li nga xamante ni moom mooy jóge ci client bi di ñëw ci ñun ndax kat euh, li ñu gën a bëgg mooy garde clientèle te loolu ku koy ku ko ku ko bëgg faaw rek nga mën a joxe loo xamante ni day am qualité su fekkee tissu coton yi dañuy xool yi ci gën a baax su fekkee ni basin yi tamit dañuy xool yi ci gën jesner tamit ak lépp lu bëgg rek soo ñëwee fii yaakaar naa di nga ko am comme ni nga ko bëggee. fan lañ leen mën a fekk. waaw ñu ngi fii ci ron point Pentola bi ci entrecité CSE bi mooy boobu bi mooy ñaareelu boutique bi am na tamit bu nekk Parcelles Assainies unité 21 soriwul lool police parcelle bi. ku bëgg a jokkoo ak yéen nekk ci réseau yi ndax xam nañu ne vente en ligne bi dafay bëri euh, c'est aussi disponible. waaw ku bëgg def commande wala nga soxla prêt-à-porter mën nga ñu jokk ci réseau yi soo defee xel Xelcom boutique di nga mën a gis réseau yi réseau boo dugg rek di ko mën a gis sinon tamit. am nañ ay numéro téléphone yoo xamante ni ku ñu ci jokk mën nga ñëw mën nga ñëw jot euh, benn bi day nekk 77 557 51 18 beneen bi 700 77 746 91 66. ñu ngi jëm nag xew-xew bu mag di màggal gi. lan lan la client yi mën a xaar. waaw màggal gi moom ñun ñëpp a ko bokk di ay murit di ay taalibi Sëñ Tuubaa am lu ñu ci war tamit ci fexe ba murit yi nga wax yi nga xamante ni dañoo jug ngir màggal yi lépp lu ñu bëgg mu mën a yomb ci ñoo xéwale yoo xamante nii teg na ko ngir murit mën a sañse ya jël seeni kër jox gan ya kenn du xatal bernde ya gandoo ne yem màggalo go Tuuba